tax nekkuñu fi kon li nga njort ne lu baax la ngay jéem a doxal ca loola ba ñoom buñ fi dikkee duñ la jënd ndax ku fi jógee ku ne nag ñoom ñoo lay ñaan maanaam ñoo lay dundal te boo leen defal lu baax xëy na seen baax rek ci mën a wéeru pour di la ñaan waaye boo leen jiyee teraanga day doon beneen devoir bu doole ko ci ñoom ginnaaw ñoom juree que ñoom fu ci nekk ñu fàttali ko lu baax Je donne souvent l'exemple, parlant du plan euh, de Paris. ku xam Paris tey xam ne nga yore oto coono jiitu woon bu ñu defal woon météo bi ndax malgré existence bu météo ak RER dañoo am jafe-jafe fi ñu gaari donc bu amuloon fi ñu jëm mais ñeneen fi jiitu woon te jariñoo ñu météo bi jariñoo ñu RER ña xalaat di ko tëral di ci liggéey mu doon liggéey bu yàgg lool jafe lool ñu bëri sàmm ci sax lool ci ñooñu lañ ko def parce que ñu doon xalaat yi ñi ñëw tey di loolu nga xam ne malgré existence loolu ñoom dañuy am jafe-jafe pour dund ci dëkk léegi bu loolu bu amuloon ñoom fu ñëpp kon xalaat yi ñu ko lu am solo mu mel ne euh, suñu man looloo waral li lu leen gërëm rek lu ñu leen gërëm rek doy seen Mouride mooy wax ne ki yenn ci kër gi ba ñuy jox. nee na bu fa toggalee di defaatee lamb rek dafa xalaat ñu nar a fanaan ndax moom yenn ànd ko ak ñu fi nekk ndax am na ñu fi nekk te dëkkuñu fi am na yëpp ñu fi dëkk te nekkuñu fi ñoom ñëpp sont concernés kon suñuy war a xalaat ci mbiru Thiès di xalaat ban Thiès la bëgg fii ak deux mille du ñu jiital suñu bopp benn lii ma leen wax léegi ci ne moom la war a bàyyi xel loolu la war a jiital mais commencer d'abord par xam. li fi ne lu mu doon maa ngi wax jàmm keroog ne ko c'est sûr que liggéey bi ñu jëm sax dañoo jël option minimale puisque réalité yi mu ñu imposé la mais su fekkoon ne xalaat bi ubbeeku woon na ba ñu mën a dépasser réflexion boobu rek boo xam ne dañ koy yemale ci cadre parce que étriqué. bu li nga xamoon nañ tuddee ville de Thiès te mu nekk en réalité la commune de Thiès su xalaat bi mu ubbeeku ne la vraie de Thiès ce n'est pas la commune de Thiès c'est le département de Thiès tey la ville de Dakar c'est le département de Dakar la ville de Pikine c'est le département de Pikine la ville de Guédiawaye c'est le département de et l'une des raisons yi tax ñi doon xalaat acte trois décentralisation bi Rufisque ak Thiès defuñu ko département bi c'est parce que dañuy wax ne dans une ville on ne peut pas avoir des zones rurales mais dama leen objecté leen nee naa leen boo demee Dakar yow am na du village Ouakam du village Ngor du village mooy ne et justement su ñu jëlee le département de Thiès def la ville de Thiès avec l'aéroport bientôt les zones rurales seront urbanisées loolu mooy doon permettre ñu am dans le cadre de l'élaboration plan de développement audace bi ci parce que tey saa yoo xalaat ay partenaires yi nga xam ne bëgg na te réellement ñu sérieux na tay wax te bëgg a ñëw liggéey réellement pour Thiès ak Thiès waay souvent bi ngay bi ngay teg mooy lii ñu def fi ñu ko defee amuñu réserve foncière yu parce que on raisonne zone ñi am réserve foncière ñoom xalaatuñu def yenn puisque dañoo jàpp seen bopp toujours zone rurale nekk ci vocation agricole kese bu fekkoon ne dañu nekk di réfléchir à l'échelle du département le plan d'aménagement bi ñuy am day doon beneen. bu boobaa biir Thiès di nga maanaam dina bëri ay kuréel yu am moyen yu fi nekk yoo xam te nañ servir la le développement de la ville ay ñoom daanaka ci biir la ñuy bokk phosphate yu yenn yi ci biir la bokk ak yeneen ak yeneen kuréel yoo xamante ni ñi ngi ci biir département Thiès lañ bokk aéroport bi ci biir ville bi nekk puisque les quatre-vingts pour cent au moins de l' aéroport se trouve dans le département de Thiès mais boobaa aussi lu ñu day day mooy dinañ boobaa ci jël na ca CFD ndax kayaar ci lañ boobaa kenn du ne la waa Thiès moom benn géej waa jël na Thiès dana ñam bu boobaa raisonnement bi day doon beneen puisque nous devons de de de développement nous devons raisonner en termes d'avenir il faut ñu bàyyi xel ko moom benn kilifa bu bu bu bu mag bu ñu daan wax Massoum Diop day yar na dafa naan wax méfie-toi du présent. Le présent, c'est la boue et c'est l'environnement. Il faut toujours envisager les choses du point de vue de l'avenir. pourtant wala foo xam ne bu yàgg ëllëg bu àññi ne waaye bu ma desee bu fekkee ne ñun ñëpp ci kàddu liggéey bii ñu jublu dañu bàyyi xel loolu euh, maanaam dinañu séddale ñun dañu wax ne ambition yi ñam te bokk ko ak waa Thiès mooy fexe c'est même le salut de Dakar ndax ñëpp xam na ni Dakar presqu'île la benn bande côtière bi nga xamante ne kenn mënu ko yaatal ndax géej moo ko wër ci ñetti côté kon bu fekkee ne presque pourcentage ñi génne ci biir réew mi dugg foofu dafa bëri te jumtukaay yu bëri ñu soxla wala comme ñu jëm ci koom-koom ak yeneen yeneen yi ci topp dafa nekk biir Dakar forcément Dakar day étouffé. ci wàllu dëkkuwaay ci wàllu transport ci wàllu santé ci wàllu sécurité ci wàllu yëpp kon ñooñu li leen di dimbali mooy mu am beneen pôle bu leen soriwul lool bay décourager ñi bëgg a génn boo xamante ni teg nañ fa un dispositif bu koy développé bu boobaa le but du nekk di wax. dëkk bi moo jiitu wala li li am solo c'est la qualité de vie des populations ñëpp xam nañu waa Sénégal dañu bëgg mbokk ñëpp xam nañu waa Sénégal nit ñi dafa def yàlla moo def ci ñoom mbaax boo xam ne bu seen mbokk ñëwee dara tumuraanke jógee feneen bu dikkee doonte amul fu ñu ñu bokkam ci dëkkuwaay yu xat yu jafe ensuite la am aussi nekk wala lekk ñu ko këram di ko la ca des mooy promiscuité ñëpp xam nañu day jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram mais loolu maanaam képp koo xam ne yaa ngi dara ngir wàññi loolu waa Dakar yow yaay wàllu waa kon quand je parle de la dédakarisation du Sénégal ce n'est pas contre Dakar c'est en réalité perspective de salut euh, mais en même ñi ko mën a def te gën ci jeex kon ci biir lii ñuy liggéey. maanaam defar Thiès ba nit ñi sawar cee ñëw nga xam ne aéroport bi bu autoroute bi àggee jëm si Thiès maanaam jóge foofu ñëw fi léegi la yomb jóge foofu dem Dakar kon forcément ñu bëri bu fekkee ne li leen di war a mën a am na ci dëkk bi mais fii la mais loolu ñun li ñu war mooy bàyyi loolu waaw du ñu xaar ñu xës suñu kaw parce que xës suñu kaw te waajal nit ñi ku fi ñëw doo fi mën a wala annonce yi mooy am ci dëkk bi ci wàllu yéen wàllu dëkkuwaay yi ak wàllu transport bi ak wàllu sécurité bi ak yeneen yi cay kon xalaat bii nga xam ne ci la ñu du xalaat politique maanaam pas politique dans le sens partisan ou électoraliste du terme xalaat la pour ñi nga xam ne ñoo ne suñu kanam te dikkaguñu xalaat la pour sàmm aussi. tax ñuy rafetlu lool ñépp ñi nga xam ne ñoo ko seet te day ci mu doon xalaat boo xam mu am pàcc pàcc yi nekk ci dëkk bi yépp yu fi daje war cee mën a joxe seen xalaat war a mën a xam ñoom yi ñu conseillé ci dëkk bi ne lu jar a defar ñu war ko fee mën a tudd ba nit ñi mën koo tënk ba mën caa génnee loo xam ne ñi nga xam ne seen xam-xam après dafa màcc jëm ci def synthèse ba ca war ak teg ko ci perspective yi ci war boobaa ñoo ne man na liggéey mais liggéey liggéey boobu solo mu des population yi nga xam ne ah, xëy na su leen ngay jël nga ne expert ci domaine bi wala domaine njiit ci association bi wala bële xëy na ñoom ñooy ñëw waaye ñoom it dañ ci am war looloo waral xam nga màggal bi mooy doon cinquième édition audience publique yi ñuy def j'ai insisté pour que muy am ci date fixe 30 octobre 30 octobre pour que loolu mooy bu juróom-benn weer bu amoon yoo xam ne liggéey bi bu boobaa dinañ jaaraloo waa Thiès wax leen lu tax ci juróom-benn weer liggéey bi ci dara bu fekkee ñu wax ko ak waa Thiès seet naka la ñu war a mën a mais il faut mu am te comme bii yàlla moo dogal mu war a dajeeg lii kon fi ñuy laajee waa ñoom aussi ñu participer ci démission bi ci audience publique bi ñëw rek nga xam mbir ñëw day am thème muy participation bu population yi ci élaboration plan de développement rural fii les associations les structures étatiques ak yeneen yi mën a participer mais ñi nga xam ne nekk ci kuréel yooyu amul ku leen représenté leen wax directement wala di leen rendre ko ñooñu mën a ñëw du ñàkk ay benn benn amati seen bopp ay xalaat yu ñu bëgg a génne bu boobaa ñu jox leen nga xam ne mbir moom mbir mu mbir mu am solo bëgg nañ nag vraiment mu gën a yaatoo rek mu gën a baax maanaam communes yi dañ ci am wàll à l'heure actuelle j'ai parlé tout à l'heure de la vision man que j'ai de la de Thiès mais loolu mooy li nga bëgg aujourd'hui il y a la réalité mooy li fi nekk euh, wax ca ca ca façon làkk yooyu ca jamono yooyu mais il y si loin entre ce qui se fait et ce qui se qui privilégie ce qui se devrait faire par rapport à ce qui se fait apprend plutôt à se faire de ce concept. Je parle devant Ndiaye Félix. ah Ndiaye Félix. Ndiaye Félix toog waaw. ñoom ñoo ñoom ñoo doon jàngale dialectique des éléments à Aristote wala morale des stoïciens des énonciations à Sénèque waaw philosophie sax ñu ngi ciy sont tenus d'informer seen conseil mais ils sont aussi obligés d'informer le maire de ci lépp lu ñuy def même dans le cadre de c'est ça la loolu moo waral invitation yi bi ñu koy def euh, association yu bëri benn nit lañu mais commune bu nekk am juróom ñi a invité pour la ville dama leen waxee ay nit ñu nekk ci biir de la vie des gens pour que mu gën a yaatu vraiment puisque bu ñu décider daal war koo jëfee ci biir commune lañ koy jëfee c'est vrai que y a l'article 167 bii wax lan muy ville en fait Thiès répondre ci li article bi wax maanaam suñ demoon tey ba lii may proposer à terme mu am yi même pour département bi mu am ci ñeent bu boobaa loolu article 167 dina ne parce que article 167 dafa dem. Une ville peut être créée par décret pour mutualiser les compétences de plusieurs communes qui présentent une homogénéité territoriale. xam nga loolu sa suppose que les communes existent d'abord après ñu dajale leen mais dans le cas de Thiès c'est-à-dire c'est une commune moom lañ ay communes ci biir tuddee ko fi xam nga donc ça ne pas vraiment. dañ koy am ci biir foofu la juddoo c'est-à-dire que ñun dañoo subir ñun ñëpp une situation pour na woon ni créé ni entretenir loolu moo tax ñun ñoo war a am plus de raisons d'échanger puisque ñun benn entité la maanaam Thiessois Thiessois la soo demee Dakar tey di nga woo nit mu la maa ngi Médina nga woo nit mu la maa ngi Ouakam

alors ah, loolu nag c'est un appel pour que ñu xam ne ñun ñëpp dañu dégg euh, séparer politique ak liggéey bi ñu nekk kenn ku ne sañ nga nga ne diw ci wàllu politique moom en buñ boo doon jóg di présenté waa sax ma la wote mais bu liggéey bi taxawee ñun ñëpp nous sommes tenus lii politique ñu tege ko ne sauf bu dee de développement jiital li nga xam ne mooy intérêt waa Thiès ndax l'article 3 de la constitution nous l'impose si dama koy rappeler fu ma toll la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par l'intermédiaire de ses représentants ou directement par voie référendaire mais la ma ci teg aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice Mansour Diouf di def ci commune est lu amal njëriñ waa may teg benn acte pour gàllankoor su ma ko defee ça dama décider à la place loolu mooy le sens de section du peuple ne peut s'attribuer l'exercice jóg fekk Aliou di def dara ci biir Thiès lu jëm ci njëriñu waa Thiès foofu may poser nag. mënuma jóg gis le maire Lamine Diallo di def dara ci biir Thiès noonu may pour si kenn ci ñoom amul sañ-sañ may def dara dans l'intérêt des Thiessois nga di ko gàllankoor je tey jii lii ñuy def dina am njeexital su fekkee ne ñun ñëpp nekk nañu ci niveau wu maanaam niveau wu intérêt niveau wu intérêt ñi nga xam ne amuñu accès ci place bii ñuy waxtaanee mais qui sont concernés tey dañu war a joxante ñun ñëpp suñu ay muy ñi nekk ci institution euh, yi ñuy tuddee municipal muy ñi nga xam ne ñoo nekk dans le service des déconcentrés de l'État muy ñi nga xam ne ñoo nekk ci organisation consulaire yi muy ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci yeneen organisation de société civile li ñu war a def mooy joxante suñu loxo pour lépp loo xam ne dina jëm ci cadre liggéey ak beneen bu ca topp te mu te leen tax ko jóg njëriñu Thiès ñu jàpp si ah lii daal moo am kat yal na ko yàlla yal na yàlla